alors dañoo toogoon bi waxtaan ci affaire euh, Pawlish euh, lu mu ñëwee bokk fi nga xamante moom mooy euh, ci Jamra ba ba dégg nañ ne am na fa carte de membre léegi maanaam ñu toog ci plateau bi ñu ne woon il faut ma woo la laaj la lan moo waral Pawlish di bokk foofu noonu boo amee leeral yi ñu ci mën a andil. Mmh. maanaam ñu toog ci plateau bi dañ doon laaj ne mam mam Matar Gueye Jamra lan moo waral mu mu ma mu boole Pawlish euh, ci li nga xamante ne moom mooy euh, groupe Jamra moo moo tax ma woola dina laaj yan leela nga ñu mën a àndil ci loolu. xanaa Pawlish moo mujjee. yëguloon ne Mouhamadou ni ko waaw moo mujjee ñëw. Mm-hmm. Pawlish moo nag ñun suñu principe. Mhm. comme que organisation islamique jamra la ñu wax maanaam nañuy jëfee ay jàngale lislaam mhm. lislaam lan la suñu borom nee na ak diinu euh, ak diinu nasixa nee na diine mottalinte la diine laayante biir sanga bu tedd bi joxe na exemple euh, foofa ci Medina mhm. benn bés li fajar benn mandikat bu fanaan ci bistro yi naan ba mandi ñëw ba yow ba toll si jàkk yi nga xam ne dafa jaawale xëy na toilette yi ak jàkk yi daal di dugg ci tubéy ji commencé saw ñoom euh, saa ba yi gën a tàng de Omar Xattaab a Abi Talib Diop ñi ñi yat ñi naan dóor leen rey leen sanga bu tedd bi nee na bu ko kenn laal bàyyi leen ko mu eggali xul ne bu ko kenn laal génn leen ko ci biti de dafa ne bàyyi leen ko mu eggali mandikat bi eggali eggali ba pare takk tubéyam Seydina Mohamed daal di ne diw kenn si saaba yi ne ko la béy ko demal nga uti ndox nga sotti ci boo ko uti ndox fet sotti ci mu ne ko jeex na sobe bi dañ na waaye mandikat bi li muy mandi yëpp dese na ko akas néew lucidité mu ñëw seen di impressionné ko mu daal di repéru sukk si kanamu gën ci bindef mhm. ko yaa Seydi tooñ bi ma tooñ ñu mu rëy ak njëggal gi ñu def li mu réer ci man te xëy na sax mérité wu ma fi nga sukkandiku ba def lii fu sell a war doon dégg naa fan yi yaa doon woote bëgg ñu bàyyi suñu xërëm yeeg suñu bokkaale yi fi maam yu bàyyi te ñu gëm yàlla bi nga xam ne kenn la kon nag man jibal naa la sama shahadaat ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu an muhammadu rasulullah daal di tuub dugg ci diina ji hmm. yonente bi woo saaba yi ne leen eh kii rey ça fait même pas cinq minutes mu ngi nii léegi ñëw na dooleel umma islamique bi xëy na bu subaa mu indi doomam bu subaa mu indi jabaram ginnaaw suba mu indi seen waa koñ nekkoon li islam li ko tax a jóg du di beddi sànni bàyyi leen ku ko tax a jóg mooy tabaxaat nit ku bees moo tax jamra Kouthia suñu xarit la Caamaas suñu xarit la ñoom ñëpp def naa seen photo yi ma photo ñoom sama page Facebook. bii mhm. euh, euh, euh, problème sama xarit la yaawu jaal bokk na jamra moom tam suñu xarit la mhm. ki mujj dugg jamra moo di Pawlish voilà Pawlish nag xam naa beneen yoon bu ñu dajee ci lañ koy jox sa carte de membre mhm. kon nag loolu mooy lislaam mhm. bàyyi leen di xeebaate ndax ki ngay xeeb xamuloo lu yàlla ma ci moom yow mi koy xeeb xamuloo fooy mujj loola waral lool nag ba en deux mille cinq agresseur boobu ñuy wax ci nu yëpp di ko daw ba mbokkam di ko daw jamra moo ko accueillir encadré ko Latif jàngal ko alxuraan ba mu tuub dolli ci diine ji muy laata génn àdduna mhm. Latif jàngal na ko ba ci am oto saawlun mu jàngalaat ko ba ci dënga dënga a lazi biyadihul mulk bi muy génn àdduna la vingt neuf janvier deux mille cinq ginnaaw bi ñëpp a wàcce na alxuraan mhm. fekk fa mu nekk ca barsax xëy na ñu bari ñun ñii di ko doon ko xeeb te ci bari moo ñu ëpp martaba fa mu ne Mhm. kon nag maam Abdou Aziz Dabakh nee na lislaam tabax nit moo ko tax a jóg mhm. ndax bu fekkee dañuy ittewoo mhm. ku jubadiku wala ku beddi sa bopp ci siraatal mustaqim ñu daal la sell sàlli jàpp tuxkati yamba yi sàlli géej naankati sàngara yi sàlli géej prostitué yi sàlli géej franc-maçon yi sàlli euh, euh, euh, kii nu mu tuddati góor jigéen yi sàlli rambaaj yi sàlli njaalookat yi sànni géej nee na bu boobaa luy des Sénégal dara du si des. voilà mm-hmm. mu mm-hmm. nekkoon nag. Mm-hmm. yaatal leen dund yi. ubbi leen seen loxo ngeen accueillir ñi nga xam ne dañu nekkoon ci njuur de ngeen accueillir pour ngeen accueillir leen pour jële leen ci ndëmbal lëndëm ànd ak ñoom ci leeru siraat mais mais mais Imaam dañoo dégg ne est-ce que Pawlish bu ñëw bokk ci nga xamante ne moom mooy ci groupe bi est-ce que du yàq seen crédibilité. est-ce que. du yàq seen crédibilité. dégg nga li nga wax ñoom fi kii ñëpp ñoom fi kii ñëpp. waaw kon jant bi ba mu acculé mandikat boobu doon euh, saw ci jàkk ji. te mu woo ko xëcc ko jox ko loxo boole ko. ci mm-hmm. umma bi dafa crédibilisé yonte bi. sëñ Babacar si mandikat ya daan ñëw ci ëttam mu di leen dalal di leen jox di lekk ak naan di leen jox ay mbuba di leen suturaal. Mm-hmm. dafa yàq crédibilité sëñ Babacar. kon nag Jamra dana continuer jàngale yi fi yonent bi def. Mm-hmm. jàngale yi fi sëñ Babacar bàyyi jàngale yi fi sëñ Fall bu baax bàyyi. jàngale yi si sëñ Saliou Baye jàngale yi si seexal islam Baye Ibrahima Niass Baye ñoom ñëpp dañu daan dalal ñu amoon ay tolof tolof di leen jidee mhm. dalal leen loxo di leen dimbali pour ñu jóge ci lëndëmu jahiliya mhm. ah euh, euh, alors imam dama la bëgg a jox Mbaye maanaam loolu moo yokk euh, seen crédibilité bëgg loolu moo yokk crédit yonent bi mhm. ah, tamit nee daa am lu mu la bëgg a laaj xaama paas la ko nga wax ak moom am Mbaye alors Jamra Mbaye Kouthia kookan la. Mbaye Kouthia Mbaye Kouthia maa ngi lay nuyu. ah Mbaye na nga def. naka woon gëj naa laa dégg. mais population bi. ana ah, kii ah, kii Abdou. waaw naa la wax ne sax Mbaye Mbaye Kouthia bi si Jamra la bokk. non non non non bokkuma bokkuma si attanu ko non <laughs> ah, dafa am polémique yoo xamante ne ñi ngi daw si réseaux yi dañ ne lan moo tax jëloo nit ñoo xamante ne ay nit ñu diiñ lañ. ay nit ñu mot lañ. Mm-hmm. ay nit ñoo xamante ne ñoo ñu crédible lañ maanaam kon liñ naan ay jamra dañ koo war a tas kon dafa mel ne kon euh, suñu xoolee aussi parce que am euh, tudduwoo tudduwoo ba benn euh, koo xamante ne ku mel ne un bon responsable la si dëkk ab benn notable boo xamante ne tudd nga ko si ne. Ah, waaw kay lan moo tax defoo defoo ko. waaw. sëñ Abdoulaye Al Amin doomu sëñ Abdoulaye Al Amin Mhm. guddi gi la wala du ko jël na carte de membre. Mhm. sec di na wala di ñun jël na carte de membre ak sëñ Abdou Wahab Seydi le khalife général de la communauté euh, Fuladu am na dignité wala amul dignité dugg na ci mu ngi ci biir Jamra. Euh, euh, Madické Niang mu ngi ci biir Jamra Medoune Medoune Thiam pharmacien membre fondateur la mu ngi ci Jamra waaye buñ ko yemale ci ñooñu. parce que bu fekkoon adduna bi ñëpp dañu ne jub ne xoj. kon yàlla du fi wàcce sanga bu tedd bi Seydina Mohamed li tax yonente bi wàcc. parce que yàlla xam na ci suñu ñoo xam mhm. leen sans xeeb leen. ñu teg wàcc mu saxib waaye bàyyi leen bëgg jël. xam ne mooy ñi nga xam ne dañu nekk ci naka. sudul noonu ñu war leen tàllal loxo ngir ñu jubbantiku waaye ñun soxlaawu ñu ñi nga xam ne jub nañ ba noppi voilà dontale ñooñu ñu ngi ci biir Jamra ne fa gàññi d'accord ah Imaam ah, dañ la bëggoon jox ah, suñu maman Selbé Ndom te même la ñu invité woon ci plateau bi moom it am na lu mu bëgg a waxtaan ak yow. salaamaaleykum wa rahmatullah. Eh, maman xanaa di la bëgg rek mbaa jàmm nga yëndoo. maa ngi lay ziar di kontaan ci yow. waa bëgg naa daal ci li ngay def waaw bëgg naa ah. ma ne bëgg naa bu baax ci li ngay def euh, keroog euh, euh, seen buzz dama ne waa dama la doon yëngal pour nga réagir ci affaire waa jooju doon génne kondom yi pour joxe mais bi ma déggee li nga def kontaan naa ci vraiment ah di la ñaan nag fii sabilillahi ginnaaw suñu borom may na la ngay jubbanti ah. ñi nga xam ne dañoo dëng ak ñi nga xam ne xamuñu fu ñuy teg seen tànk yàlla may la loolu nga am cër ci réew mi moo tax ma ne leen jox leen ma Mame Makhtar ma bégg ko ba pare te di la ñaan fii sabilillahi maanaam nga reyante ci saaga ñuy saagante ci internet bi. am na solo. Mm-hmm. metti na ma torop ndax képp ku waajur jur rek. maanaam saaga yi laa bëgg nga jàpp ci. ba saagaati rek ñu daan la. xanaa doguma la sax. Hmm. mais dinaa yónnee Abdou si kanam benn lien léegi laa ci doon wax émission bu ma ñoom Sa Ndiogou ak euh, ak Soubey bi dayal mane ne. maa hmm. ngi yëgal saagakat yi. wallaahi am na loi bu bees bu am. wallaahi la loi deux mille huit onze. di hmm. vingt toog bitim réew. saaga xali généraux yi. wallaahi di saaga kilifa diine na ngeen xam ne dakk na léegi. wallaahi alhamdulilah dafa doon nelaw ci tiroir bi raf jamra dekkal na ko. ku fi saagati rek. di nga xam ne ay waay waay kon day yàlla dina la gën a fay loolu daal man moom laa yittewoo loolu dong laa lay ñaan parce que koo xam ne waajur moo la jur ak ëmb ni méttee wësi ni méttee nàmpal ni méttee nga bàyyi sa yaay dàpp yaay jàmbur def ko tifaar ay saaga ndey vraiment loolu naqari na ma tàllal naa la loxo ginnaaw bi ma tàllalee yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di la ci remercier bu baax parce que waxtaan naa ci ak euh, ki toogal procureur fii ci cybercriminal. macha allah. muy le commissaire Ali Kane. Mm-hmm. waaw mu ma kaa boo leen na ngeen def li ngeen def ak Ahmed Cissé ngeen utal ñu preuve yi. Mm-hmm. vidéo yi ngeen def ko ci clé USB ngeen euh, saaga yi moom. Mm-hmm. xanaa lu ñu yëgul waaye lu ñu yëg ku ñu su ëllëgee sa dossier mu ma jox la loolu daal vraiment. waaw imaam ah, ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci déplacé wu ak lu ñu jékki-jékki rek woo la di la jégalu bu baax a baax bëggoon ay leeral rek moom moo taxoon ñu woo la. waaw neel ma neel ma sel bi na ma yónnee numéro am bu la ko joxee nga jox ma ko dégg nga. d' accord amul benn moom jigéen bu moom dañu war di waxtaan ak moom. waaw waaw waaw waaw incha allah. Mhm. ndeysaan jërë ngeen jëf maanaam ah, kooku moom moo nekkoon Mame Matar Gueye Jamra alors euh, comme toog nañ ci plateau bi di laaj ah, lan moo waral Pawlish si dem foofu day baax ñu woo ko mu ànd ci ay leeral